تعين دون الدمبل علي تعين دون الدمبل علي تشوم اللغة اللغة فكنا كنت بنن حديث بوخمني دبونا اللغة دال فقد روانيتنا القاضي ابن أبي يعلى ونفاد سنة من سيس مهم دفنو تقالي بيسنا علي جي سندم إلى عباس بن, بن محمد الدوي كوني فارس دوسان سون أونز أنوني مم قال وحنا عباس بن محمد مو وخ نانتها دويت العلم أصحاب رسول الله كم كم صحابة يرنتي بس الله سلم إلى ستة نفر يجون بنينت من صحابة الصحابة ما نام كم كم فقه أديك دينه يجون بنينت صحابة إلى لكو يالله دف أنا من يوجي أبل لا رضي الله عنه يالله يالله قرمني ما عمر بن الخطاب أقعلين بن أبي طالب كان دوم مؤمن علي وعبد الله بن مسعود wa ubay bun kaab wa muaz bun jabal wa zeydu bun saabit ñi ñoo doon kàngaamu fuqahaa yi moo tax faawlaay gaa ñi tabaqaatul fuqahaa ñooy tabaqaatul borom xam-xam fiq yi ci saxaaba yi maanaam ñoom ñooy ñi nga xam ni seen xam-xam ci wàllu fiq dafa neexoon ñu ràññeeku ci fesoon ci moo tax ñu tuddee leen tabaqaatul fuqahaa ci saxaaba yi kon mooy ñu tolloo rek nit ay garaat lañ daal garaat yu wute ñu neexoo garab ñoom nañ def benn tabax waa ma ruwaat waaye ñu doon nettali xadis mu ne fa sitatu nafarin juróom benn nit la ay dem ba tey nga xam ne ñoo ëppale xadis mooy abu hurayra ak anas bun malik ak jabir bun abdoulaye ak abdoulaye bun omar ak abu saïd al khudri ak aïchatu radiallahu anhu na yàlla gërëm leen ñu ñooy tabaqaatu ruwaat ñu doon nettali xadis waa ma tabaqaatu asaabil axbaar yi waaye tabaqaatu gaay xibaar yi wal qisas yi ak jàngat yi histoire yi fa sittatu nafarin juróom benn mbooloo lañ ba tey abdullah ibn salaam wa kaabul ahbar wa wahbu bun munabbi wa taawus al yamani wa muhammad bun ishaq bun yasaar wa muhammad bun amr omar al waaqidi ñii ñooy tabaxaat ci ñi nga xam ne ñooy nett di siire yi xibaar yi histoire yi ñii ñooy ñi gën a siiw si ñu koy nett waaw maa tabaxaatu tafsir waaye ñi nga xam ne ñooy ñooy tabaxaat ci wàllu firim alquran am ñu ci gënoon a fës fa sitatun juróom benn lañ ay ba tey Abdullah ibn Abbas ak Saïd ibn Jubayr ak Mujahid ak Qatadatu ak Dahak bu Muzahim ak Suddi ñii ñooy wa Suddi ak Suddi ñii ñooy juróom benn yi nga xam ne ñooy tabaqaatu tafsir parce que ñoo gënoon a siiw ci mufassiroon yi waaw maa tabaqaatu xusaani ilmi boo bëggee xam tabaqaatu ñi doon garde xam-xam fal ahmash mooy ahmash wa malik bun anas mi ngi xam wa abdurahman bun amr al awzaa'i wa sufyan al thawri ومسعر بن كدام وشعبة بن الحجاج جيروم بن ني نيو تبقات خز جيبون ني مو نيو تبقات خزان العلم ني دار خم خم ني رون دال محمد صلى الله عليه وسلم باسكو لو نيك رك دا فام ني سي فيسون خم خم وما تبقات الحفاظ ما تبقى ني خم نيو وتو حديثي مكال كو فسيرتو نفرين جيروم بن ايرن باتاي احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل ak yaxya bun mahin ak alin bun madini ak abu zurata arasi ak muhammad bun ismail al bukhari ak muslim bun hajjaj ñii ñoo doon ñu doon wëttu hadis yi kon boo xoolee catégorie gu nekk lañ ràññeeku woon rek dañ leen cee jégle nañu ñooy tabaxaatu de lii mooy ilmu tabaxaat fa bayinu aji leer la jiddan lool an naa ne an noo ne moom sammaa tuddee na ku la waaye ni kenn ku nekk mais sitati si juróom benn yi tabaxatan muy benn étape wasama tuddee ne kulla sitati nafarin bépp juróom-benn mbooloo jëmeen mboolem seen imma benn tabaqaatul fuqaha dañ leen tuddee ñii tabaqaatu ruwaat ñii tabaqaatu tafsir ba mu jeex. Hmm. su ku nekk la nga ràññeekoon rek ci ñooñu lañ la boole catégorie googu lañ la boole kon tabax mooy ay catégorie hmm. ila axiri ma sama ba ci mujj la mu tuddee wa baynun aji leer la àndoon moom yaani dana namm bi tasmiyati kulli waahidin ci tuddee kenn ku nekk minum ci ñoom tabaqatan àndoon na moom maanaam tuddee gi mu tuddee kenn ku nekk tabax lam ci nam mooy àndoon na ko waa jooju njiit la mu tamayizun bu ràññeeku fil fiq ci fiq bu dee ci tabaqaatu fuqaha awi riwaaya wala dafa ràññeeku ci nettali hadis awi tafsir wala dafa ràññeeku ci firi awi xibsi wala dafa ràññeeku ci mokka moo tax len tuddee leen tabaqaatul xufaas wala tabaqaatul xuzaar al moo lay demee ñi nga xam ne dañoo ràññeeku ci dara daal catégorie googu ñoom la ñu boole benn tabax amma taarifu tabaqa bu dee firi tabaxa fi istilaahi muhaddisiina ci jëfandikoo ñooñu xadis ba léegi ni wuteewut ak sorewut ak lii tabaqa di firi ci ci loxo foofu moom loolu mooy xaw mu nit ñoo xam ne taqaaraboo jegewante lañ fi sinni ci at wala isnaadi ak sanat oo fil isnaadi wala sanat faqat donc ay nit yoo xam ne nii maanaam seen at yi dafa neexoo ñu boole leen ci benn tabax parce que ñoo bokk jamono juñ dund ak seen sanad yi jokkoo nga xam ne daanaka ñoo sanad yi ñu am seen diggante yi nu xaw naa neexoo seen sëriñ tamit xaw nañoo neexoo daal dañ am dañ jël ci hadis yi neexoon xanaa ay nit yoo xam ne toll nañ daal ci wala hadis wala boog tollowuñ ci ay at sax waaye ñoo tolloo ci sanad ñu boole leen benn tabax lan mooy ñu tolloo sanat mune bi an yakuna ci mu nekk suyuquhum suyuqu haza sëriñu kii hum ñoom suyuqul axar ñooy sëriñu keneen ñoo bokk sëriñ kon ñoo bokk benn tabaq aw yu xaaribu wala ñu jege suyuqu sëriñam yow say sëriñ jege na ñoom sëriñu këre ci garaat ci xam-xam ci martaba ñu boole tabaxa parce que daanaka yéen a neexu waxad yakun dana nekk raayu aji nettali ji ci tabaqatin ci tabaqa bi itibaari mushaabahati ci boo xoolee niroog gim niroog laxaa ko min wajin ci anam wa min tabaxate oxra mu bokk ci beneen tabaxa li mu saabaate ngir niroo gim niroog laxaa ñeel étape boobu min wajin àqas ci beneen anam kenn nit mën nañ ko boole ci tabaxa bi ndax am na lu leen niru boole waat ci beneen tabaxa bu bokk ndax am na lu mu leen niru comme anas bun malik wa ci bi ak yu niroog ñoom min a saxaabati ci ñi ndaw ñi saxaab saxaaba yi ci saxaaba yu ndaw yi xam nga boo doon xaaj saxaaba yi étape par ñooyu ñooñu ñoom ci suufu suuf la ñu nekk mais nag mën nga koo boole boo doon xaaj ne xaaj euh, tabaqaat yi ci kam niñ jege yonent bi mën ngaa jël tabaq saxaaba yëpp boole benn tabaq kon moom boo boole saxaaba yëpp benn tabaqa si saxaaba yi la bokk mais booy xaaj saxaaba yi ci ñu ndaw ñi la bokk kon ci biir saxaaba yi ci saxaaba yu ndaw yi lañ bokk ci dégg nga ci biir saxaaba yi saxaaba yu ndaw yi la bokk waaye ci e, ci biir saxaaba yi saxaaba yi la bokk mais booy xaaj nag saxaaba yi moom ci ndaw ñi la bokk kon sane <coughs> ne ci ni nga xaajee daal hum ñoom maal asrati ànd ak fukki yonent diggoon aljana fi tabaqati saxaabati si tabaqa saxaaba bi lañ bokk ndax ñoom ñëpp ay saxaaba lañ haza boo sukkandikoo ci lii as saxaabatu saxaaba yi kullum ñoom ñëpp tabaqatun benn tabaqa بيان تباري استراكيم بوخوي نين بوكاتي في صحبتي اند يونتي بي سلاس نيوم نيوم نيوم بوك اند يونتي بي وبيان تباري اخر سي بنين قولين هو موم النظر موي بو قول الى الفضل سي نين نيو غن وسابقت اك ني في الاسلام في الاسلام هم نيوم عده طبقات اي طبقه يوتي لين ني جيبلو مك اك ميغا خامني نيو جيبلو نا يونتي بي سي دارو ندوتو كرك بو عمر توبه نون غوي توبي توبي با سي وا بدر بام جيخ kon ay tabaxaat tabaxaat lañ ci wàllu ngëneel waaye nag ci wàllu soxla ñoom ñëpp benn tabax lañ kon tabaxaat yi daal ni nga koy séddalee mu ngi aju ci ni nga xoolee booy xool ci ngëneel wa saabiq ak jiru fi islam ci islam hum ñoom saxaaba yi iddatu tabaqaat ay tabaqa yu lii moo ne ay ay catégorie yu wuute lañ saxaaba yi ay catégorie yu wut lañ ci wàllu ngëneel ak ci wàllu ñu njëkk dugg ci islam ak ñu mujj dugg booy xool nag ci ànd ak yonent bi ñoom ñëpp benn tabax lañ la loolu la namu ci ne boole nit ci tabaxa bi boo xoolee ci côté nga boole ko ci beneen tabax boo xoolee ci beneen côté kama zakara comme nu tuddee xaafis ibnu saadi fi tabaqaat yi ci tabaxam wal xaakim ak xaakim fi maarifati ulumi xadis ñoom ci saxaaba yi leen def ay ay catégorie am ñu ko xaaj ci fukk ak ñaar tabaqaat fan la xam-xamu tabaqa soso wa tatawuru ak nan la màggee moom la bëgg a jàngale taqsimu taraajimu ruwaati séddale gi ñuy séddale ci wax gi ñuy wax ci ñuy nettali xadis ala tabaqaati ci ay étape taqsimun séddale gi ko jug islam asirun gu cosaanu ñooy nettali xadis ñu def leen ay xaaji xaaj kooku moom ci lislaam la bokk am na cosaan hmm? nii ñu koy defee moom yonentu daaw ko defee noonu mais xaaj ni ñi def leen ay étape étape yonentu ko njëkk def wal aslu lay cosaan fii ci moom maa rawaaw mooy xadis bi nga xam ne nettali na ko imran bun xuseyn radiallahu anhu imran bun xuseyn yàlla na yàlla gërëm ko an rasulillahi mu jëlee ci yonente yàlla bi salla yàlla na doole xawal allah yàlla alayhi si moom wasalama sooli ko musa xaala yonentu def ne xayr ummati ñi gën sama xeet xarni mooy sama maas kon maasam gi benn tabaqa lañ su ma la dina topp ñi nga xam ne yelunu méng nañ ca mooy taabiine yi kooku beneen tabaqa la su ma la dina topp ñi nga xam ne yelunu méng nañ ca mooy taabiine taabiine beneen tabaqa la qaala wana imran imran fala adri xawma azakara ndax tudd na baada qarnihi gannaaw maasam nga qarnay ni ñaari maas rek kon muy taabiine ak taabi taabiine aw salaasa wala ñetti maas su baa kon day nekk taabiine taabiine taabiine ak taabiine taabiine taabiine loolu leeru ko daf cee juum nettal xadis bi xamul daal yonent ba mu tuddee maasam gi ñaari maas la ci teg muy taabiine ak taabiine taabiine wala ñetti maas la ci teg muy taabiine ak taabiine taabiine ak taabiine taabiine taabiine alxadis kon yonentu gis nga dafa xaaj nit ñi ay catégorie nii ci la xam-xamu tabaqa sosoo waqad nasha sosuna hadal ilmu bi la xam-xam wa tatawara mu màgg ala aydi ulama yi xadis ci loxoy borom xam-xam xadis yi ñoom ñoo ko yokk mun ko xaar ni saani dippi maas ak ñaareel ak hijri ci gàddaay ga walam yuqtasar xemuñ fii ci moom ala taqsimi ruwaati si séddale ñee nettali xadis ala tabaqaati ci ay étape بحسب اللي قائم شي كم نندجك لشيوخ نيا سرين رك دير همون شي قول آه، في سيد لنينة الحديث شي كم سرين شنجل أما كي جيري تابعين يجيري شي مكي صحابي بوكو دنيا خمني جي مكي صحابي لول أم نيكو سيد لنينة وانا كي من فوق كسر سواء موقم كان نيكن عمان داج مطلع بمعنى جيري شي معنى ماس ويقرني ولا ماس كما فعلكم من دف كل مكب من بحشل الواسطي من فات 292 من بحشل في تاريخ واسط يوم نعم. دنو سيدري طبقات سي ماسك ماسك ماس صحابي ماس تابعين ماس تابعي تابعين مي خولو ني سي مكا ني جيري في سيرين سي ماكسي دي خولو ني اك ابو حاتم بن حبان البستي من فات 354 في كتابي سيرم الثقات اك علماء امصار téeréem bu ñuy wax masaayir ulamaay amsaar mooy ñuy siiw ci borom xam-xam dëkk yi ak sixaat noonu la ci def nga Abu Abdullahi al-Hakim muy faatu quatre cent cinq fi taarixi ne saabuwa xeesu jaala gis nga yëpp ay téer la waaye ñu si wax tabaxat xeesu jaala def na haulaay ruwaatu ñi nettali xadis yi ala arbaa tabaqaat ñeenti tabaqa la leen def asaxaaba kon ñoom ñëpp daf leen def benn catégorie ak taabiona yi mu def leen benn catégorie at baaw taabiina yi ñu topp taabiina yi mu def leen benn catégorie tabaxul at ba ñi topp ñi topp taa bi ni mu def leen benn catégorie am na ñoo xam ni nii ko defee kon ñoom xooluñ ci ñii ñoo dajeeg sëriñ su mag seeg ñii ñoo njëkk ak ñii ñoo gën ak xool xooluñ foofu kon am na ñu taalifee nii ci wàllu tabax aw kaana wala mu nekk bi suuratin ci melokaan adaqa bu gën a sew fi taqsiimi si séddale am na ñu séddalee nu gën a xóot lool maanaam ñoom dañuy xool ci catégorie gu nekk seeni i sëriñ ak seen garaat mu toll كما فعل كم كل كب من محمد بن سعد الزهري من فرد 230 في طبقاته الكبرى طبقاته الكبرى للزهري محمد بن سعد نون لدف الخليفة بن خياط العدفري ومن نون ديف من فرد 240 في طبقة أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة المحدث حيث قسم قائدنا هؤلاء الرواة نيسد الحديث إلى عدة طبقات تليم أي أتاب صحابي أي أتاب لين دفتابي ونينون parce que tolloo bi xasabi liqaayim ci kem niñ dajeeg li suyuux ñeel sëriñ laakin waaye nag bi suuratin ci melokaan adaq bi gën a sew lañ ko defee fa masalan ci misaal man la xëye ki dajeeg kibaara saxaabati magi saxaaba yi mina taabiina ci taabiina yi yu àddu dañ leen compter muy étape bu njëkk ci taabiina yi taabiina yi magu saxaaba ñu étape bu njëkk man la xëye ñu dajeeg man duunum ñu wuuteeg mag saxaaba yi ñi nga xam ne taabiina yi daje nañu saxaaba yi waaye ñeen dajeeg bokkut ak magi saxaaba yi yu àddu ñu compte leen tabaqatan saaniyatan muy état bu ñaareel bi catégorie bu ñaareel bi ba man laqee ñu dajeeg sigaaruhum ñu ndaw ci saxaaba yi xam nga am na ñoo xam ne ay xale lañ ci saxaaba yi daanaka ba yonent gën a àddina ay xale lañ ñu dajeeg ñoom yu àddu ñu compte leen tabaqatan saalisatan état bu ñetteel wa hakaza nii lañ ko séddale def ko ci taabine ba mu jeex lam yaqtasir gàttal ñu al muslim muhaddisuuna ñooñu xadis ala taqsimi ruwaati si séddale ñeeneetal xadis baasa bi suyuuq ci kam sëriñ ci rek déedéet defuñ loolu am ñoo xam ne maas lëmm benn catégorie lañ leen def am yoo xam ne dañuy xool ci kam sëriñ ci catégorie yi jëlee sëriñ su mag si ñu def leen benn catégorie ñu si topp def leen na ko topp noonu lañ koy séddale ba li fi nekk tatawara yokk na istimaaloo jëfandikoo mel na damay xadis ci borom xam-xam xadis ilaa maani uxra jëm ci yeneen maanaam borom xam-xam ti tamit xool nañ ci yeneen maanaa xaajee ci borom xam-xam yi nettali xadis kal fadli comme ngëneel wa saabiqa ak ñi jiitu léeg-léeg ñu xool ñu ëpp ngëneel ak ñi yëkk a dugg kama fi sahabati comme si sahaba yi boo xool ci boo xool ci côté boobu da nga def sahaba yi ay catégorie ndax ndax ëppante nañ garaat njëkkante nañ dugg ci lislam awi xaal wala ñu xool ci situation wala manzilat ak wàccuwaay ñu gën a foor ñu gën a kawe ëpp xam-xam ñu xool foofu kama zakara kama taqadama comme ni mu jiitoo zikr zalika tudd loolu fi kalaami abbas adduuri hmm? xam nga kooku dafa xaaj gaay tabaqaatu fuqaha dafa xool ñii xam-xam bañ màccee mu def leen ci catégorie bi ñii xool ñi jël ruwaat yi ñu gën a fës ci nettali xadis mu ci catégorie loolu mooy xool ci wàccuwaay bi ak xaalu nit ki maanaam ku nekk fa mu màcc ñu def ko ci catégorie boobu am na ñu ko séddalee noonu wa kullu haadihi taqsimaat mboolem séddale yi yasmuluha dana ko làmboo maanaam tabaqa séddale leen par maas tabaqa lañ koy wóowee mhm. séddale leen ci kem sëriñ sëñ dajeeg tabaqa lañ koy tuddee séddale leen ci kem ku nekk rek xam-xam ba màcc ak fu mu gën a fës kooku ci tabaqa lañ koy tuddee ñoom ñëpp ay saxaaba lañ waaye dañoo boole ñii si tabaqaatu ruwaat ndax ñoom ci nettali xadis lañ gën a fës boole ñii si tabaqaatul fuqaha ndax ñooñu dégg diine ci lañ gën a fës mën ngaa boole ay nit ci tabaxaatu tafsir ndax ñooñu firi xadis lañ gën a firi alquran lañ gën a fës mën ngaa boole ñeen ci tabaxaatu xufaas ndax ñooñu mokkal lañ gën a fës kon kooku kooku da ngaa xoolee tabaqa ci wàllu xaal wala situation ak wàccuwaayam ci xam-xam nga nga nga boole ko ci ñooñu loolu yëpp day dugg ci xam-xamu tabaqa dugg na ci maanaam tabaqa fi lisaani arab ci lam lam làmmañu arab kama sabaqa ko nu mu jiitoo al isharatu ju ñu ila zalika imsiro fi taarif ci xam bi tabaqa daal mooy ñu niroo nga boole leen benn étape léegi nag ça n'est pas ci xool gi nga xool lañ niroo rek ci nga leen boole tey booy xool tabaqaatu saxaaba da nga si boole saxaaba yëpp Omar ibn Xataab day dugg booy xool magi saxaaba yi Omar ibn Xataab day dugg mais boo doon xaajit Omar ibn Xataab dafay dugg ci tabaqaatul fuqaha mais du dugg si beneen tabaqa kon si côté. mën nga ko boole ci benn tabaxa ci beneen côté nga boole ko ci beneen tabax lii mooy tabaxaat xam nga lu wax wa qad istamara continue na at-taalifu taalif ala tabaxaat si tabaxaat yattasimu di yaatu wa yatatawaru muy yokku hatta nihaayati xarnil mm, taasin ba ci jeex ak maas ak juróom-ñeenteel hijri gi géeju gàddaay gi maanaam borom xam-xam yaa ngi gën di taalif muy gën di yokku di gën di avancé ba maas ak juróom-ñeenteel ci gàddaay ak ñu ci taarif kama am tëdda kon mu tàlloo istimaalu nizaami tabaqaat jëfandikoo organisé tabaqaat yi ilaa kutubi tarajum ci téere tarjuma al oxra yeneen boo xoolee nit ni borom xam-xam yi di doxalee ci wàllu tabaqa am na ñeneen ñuy tarjuma ci ay maam ñuy wax ay borom xam-xam di leeral ñoo ñeen taalifee comme nu tabaqaat yi taalifee ka tabaqaatul qura li xalifa bun xayaat dafa wax si jàngkat yi mais mu def leen ay étape كم نكون محدثوني دفع وطبقات الفقهاء لابي إساق السيرازي كبيرون كم كم فقه لأي وقت كم نكون ينحدث يعني حديث دفع خيار من فات 240 شيرازي من فات 476 الطبقات الصوفية لابي عبد الرحمن السلمي تفقه الصوفي عنكي مدفن أي طبقات كم من فات دوس الطبقات فهول الشعراء تبقى بيواسي ويكدي لمحمد سلام الجمعي من فات مهم 232 ak tabaqaatu naxwi yi nag tabaqa bi wàll wax ci wàllu naxwi mm-hmm. la bi Bakar Zubaydi ñu fàttali ba 379 waxee Rizare ak Doudou kon am na ñeneen ñu doon tarjuma di la nettali étape bu nekk ci borom xam-xam yi ñu si gënoon a ràññeeku ak catégorie yi ñu amoon waaye nag ni borom xam-xam muhaddisoon yi organisé tabaqa ñoom noonu lañ ko defee loolu it am na. faayda li mooy ab njëriñ la. معرفة علم فائدة معرفة علم الطبقات لن مجرد قم كم قم طبق لن مجرد قال وانا الحافظ هراقي من فاتو ويسان سيس تغادي ومن المهمات بوكنا شيء أمسلو معرفة طبقات الرواة قم اتابو نينة الحديث أكسير غرات فإن هناك يتفق من هذا اسمان نياري تور في في اللفظ كي fa yuzannu ñu jot ana ahaduhuma ne keneen ki alaaxar mooy keneen mën naa am ñaari nit yoo xam ni ñoo bokk tur waaye bokkuñ bokkuñ jëmu mais tur yi benn la fayet maysu dana ràññeeku zaaliku loolu bi maarifati tabaqati maa nga xam seen catégorie boo xamee ne kii si saxaaba yi la bokk kii si yi nga xam ne ñoom ñaar benn loolu nag dañ ciy boole xam seen i sëriñ te boo xamee ne kii si ñii la jëlee kii si ñii la boo xoolee hadis bi rek. boo gis sëriñam rek xam ne kii keneen ka lañ ci nam waaye nag muñ ci kële ndax ñaar nit mën nañoo bokk tur waaye nag kii ku seq la kii daa daif la kii ku lott la ku ñu wóor la kooku xam-xamu tabax dana la jàngal ba nga mën a xam ne ñaar ñi bokkut fay tamit dana ràññeeku zaalik loolu bi maarifati tabaxat yi maa xam seen tabax in kaana buñ nekkee min tabaxatayni si ñaari tabax yu bokkut danga leen mën a ràññale fen kaana bu ñu nekkee min tabaqatin waahidatin ci benn tabax ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk tabax te ñoo bokk tur for ba ma askara amaana mu lëndëmal alamru mbir mi war ba ma urifa amaana ñu xam zaari kuréel bi man fawqoo ci ñu ko faree kaw aw duunoo wala ñu ko faree suuf su boobaa nooy def ñoo bokk benn tabax bokk benn tur da ngay xool seen i sëriñ boo xoolee seen sëriñ boo xoolee bi gis mu jëlee si sëriñ boo xam ni kii ay sëriñam kooku bokkut ci nga xam ni kii kee lañ ci namm keneen nga maanaam leen mën a xame daal bu kii jëlee ci Ibrahima bi kii jëlee ci Muhammad boo gisee hadis bi ñu gis ci Ibrahima rek wala gis ci keneen koo xam ne si sëriñu benn waaye lu tudd da nga xam ne kii diw la waaye du kële hmm? moo tax xam-xamu hadis yomb de ba dafay laaj sa nga xam ni ki ay sëriñam yëpp bu fekkee ñoo bokk sëriñ nga xool seeni taalibe kooku bañ ko tuddee kañ lañ tudd njëkk koo tudd boo gisee ne ki ñu tudd jàngewul ci keneen ki nga xam ci kee la jàngee xam ne nga xam ne ñoom ñaar bokkuñ kon boo xoolee seeni i sëriñ wala seeni i taalibe luñ bokk bokk tur bokk benn étape bokk benn catégorie da leen mën a xam kenn ku nekk da xam ay sëriñam wala ay taalibeem te hadis bi buñ koy nettali moom dañ ciy nettali waaye taalibe bi ak sëriñ da ngay xool noonu ñi ko faree ko aw wala ñu ko gën a faree suuf mel ne waate ci nettali furubama kaana léeg-léeg mu nekk ahadul ahadul muttafiqeen yi kenn si ñaari way dëppoo fi ismi ci tur hmm. laa yer wi du nettali amal rawaa ci ka nettali naanu ci mu ala axari keneen ki ñoom ñaar mën bokk tur waaye bokkuñ sëriñ nag fële si saraka bokkaatee fi raawi ci aji nettali alaala gi ñoo bokk sëriñ wa fi man rawaa ak ci ku nettali anuma ci ñoom ñaar hmm? maanaam ñoo bokk hmm? ñoo bokk taalibe hmm? dégg ñu bokk sëriñ bokk taalibe maanaam kii jàngee na ci ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar ñibbit kenn ku nekk jàngee na say sëriñu morom noo koy xamee fële iskaalu gi xi ne idi boobu achadu moo gën a tat waaye damaa yu may naka dana xàmme zaalika lu ahlul hifzi borom xam-xam yi mokkal xadis ñoom moom danañ mokkal xadis bu nekk xam kii kan ci kanam maanaam foofu loolu foofu ñu xóotu ci wàllu xadis lool ñoo ko mën a xam ma maarifat ak ñi xam xadis bu baax a baax hmm? ndax ñoom dañuy sonnee xadis yi ba ci cosaan bi waaw <coughs> eh, noonu mën naa xam ne xam nga koo xam ne dafa toog toore dem ci ab téere ubbi ko gis tur wi. gis sëriñ bi mu xam ne diw la bokkut ak koo xam ni moom maanaam dafa topp xadis bi ba si njolloxtoon la ba maanaam dafa jàng ci koo xam ni xam na ne sëriñ bi sëriñ nangam la kooku jàng ci sëriñ boo xam ne xam na ne sëriñ bi sëriñ nangam la kooku moom dana mën a xam hmm? parce que moom xam na ne tur bii ñuy tudd diw la parce que dafa sonne xadis bu baax ñaar ñoo mën ñoo bokk kon bu lantee ñooñu ñoo ko mën a gën a xam moo tax xadis dafa am sew sew yoo xam ne foo nga dellu ci borom xam yu mag wala wala fa danañ xam kaw nu raawi yi nekk ak ñaari way nettali xadis yi awi ruwaati wala mbooloo may nettali xadis min tabaqatin waahidatin ci benn étape bi taqaarub yim ci jege gin jëne jege fi sinni ci at wa fi suyuux ak si sëriñ alaxisi na yowey ñede woy ñede ñeen jëlee anum ci alaxisay na ñe alaxisi na ñede woy jëlee anum ci ñoom alaxisi na ñe woy jëlee anum ci moom ñu lay xamal ne ñaar ñi ñoo bokk benn étape bokk benn catégorie mooy boo gisee seen at yi dafa jege sëriñ ci nga xam ne ñi ci ñoom lañ jàngee dafa jege da nga xam ne ñii ñoo bokk benn catégorie imma benn bi kaw ni suyuqi haza si nekk ak sëriñu kii hum ñoom suyuqi haza ñuy sëriñu ki aw taqaaru bi suyuqi haza wala jege ak sëriñu kii min suyuqi haza si jege sëriñu kii fi àq si si jël su dee ñoo bokk sëriñ wala daanaka ñoom ñaar seen sëriñ jege nañ ci borom xam-xam yi ñu jëlee neexoo daal da nga xam ne ñooñu benn catégorie la boole ni boole nga def leen ci benn catégorie parce que ñoo xaw a tolloo daal maanaam ñi tolloo daal. wa bi sababil jaali si sababu réer bi maarifati tabaqaat yi ci xam état bi xalata ci la jaxase xayru waaye dañ ko dul kenn mel musannifiin taarifkat yi bëri na taarifkat yoo xam ne ñàkk xam kii ci ban catégorie la bokk tax na mu jaawale ko keneen yaakaar ne moom la te du من ne بيور فيك wérut ولا من na wala mu ne بس bi wér na fekk wérut parce que dafa jaawale ñaari فربما ظن أمانة من جوت راوين أجنة نتري راوين آخر بين أجنة نتري غير بدر مم وربما أدق أمان من دوغا راوين أجي نتري في غير تبقى طبقة تبقى طبقة غير لفس أمس سو سو وقال على هذا السخاوي من فات نفسان دو تشيغا داغي نو فائدة ونجرين الطبقة الأمن مو هولو من تداخل المشتبهين في دوغنتك ñu niroo ñu kal muttafiqayni ki ñaari way dëppoo fi ism fi ismin ci tur aw kundi wala dàkkantal aw nawi zalik looy niroog yooyu boo xamee kii ban catégorie la bokk ak kële ban catégorie la bokk dana la mën a xàmme wa imkaani ittilaa yi ak jàppaleg yër ala tabiini tadlis yi ci lant boo xamee kii catégorie bii la kii catégorie bëri la ah, ku lëntal ci hadis ne jëlee naa si sëriñ diw bu la jëlee naa si sëriñ maanaam bu tuddee diw rek da ko mën a xam la mën naa ñëw rek ne am Mouhamad bun Ahmad jëlee nañ ci Mouhamad bun Ahmad te fekk yow am na Mouhamad bun Ahmad boo xam ni dégg nga ku hóor la waaye kii moom Mouhamad bun Ahmad mi daif la moom mu ne Mouhamad bun Ahmad rek pour lëntale pour nga yaakaar ne xadis bi xadis bi wér yow boo xoolee sëriñu Mouhamad bun Ahmad rek da nga xam ne kii bokkut ak kële bokkut ak ku hóor ki loolu xam tabaqa da koy maye wala xuuf ak taxaw ala xaqiqati muraad yi ci lañ namm ci dëgg-dëgg. mais hmm. an anati ci hadis boo xam ne ko nettali ci an tey hadis bi def ne an nangam an nangam an nangam léegi mën naa wax an nangam an Muhammad bun Ahmad ci misaal dama jox exemple rek te yoo xam nga ñaari am Muhammad bun Ahmad nga xool sëriñu kii rek wala taalibeem rek nga xam ne Muhammad bun Ahmad bi ci catégorie nangam la bokk bokkut ak kële nga mën a xam hadis bi wér na wala wérul li maarifati hadis mursal dafay dimbale ba nga xam mursal ayul munqata wala bu dog hadis bi bu dee diggante saxaaba beeg waa ji dafa am ku ci dagg da nga ko xam parce que boo xamee ne kii si taabi ne la bokk kii si saxaaba yi taabi ne bu ne moom si yonentu la jëlee da nga xam hadis bi mursal la kon xam tabaxa mën na laa xamal hadis mursal da nga xam hadis munqati ba tey kii bu bokkee ci tabaxa bi dem ne moom mu ngi jëlee sëriñ boo xam ne ñoom ñaar bokkuñ dund sax bokkuñ benn tabaxa fekkente wuñ sax si jamono da nga xam ne hadis bi munqati la am na ku ci dagg wa tamizu dana tax nga xàmme xàmme ani hadis musnad ci hadis buñ wéet manam boo xam riwaya bi dafa jokkolo bay wa baynu ak digantem waaw manam da li dana tax la nga meuna comprendre hadith bu bax mum tabaqa wa baynu nek na digganteem wa bayna tarikh ak diggante tarikh umumun ak matale wa xusuusun ak jagleel wa jiin ci ak anam manam amna fuñ bok dajé amna fuñ wuté fay taman da len dajé fi tarikh fi ci xam bi ruwaati ci ñuy nettali hadith tarikh daf lay waxal waji moy kan dëkkam juddom ak lépp lu aju ci mom tabaqi yi daf lay waxal waji ban étape la dëkk la dund ak ban catégorie la nu mu tolloon ci xam-xam kon ñoom ñaar ñoo bokk ci côté boobu wayen farid dana wéet ak taarixu taarix bil xawaadis ci xew-xew yi taarix mboolem xew-xew yi aju ci waajal dana ko andi ma tabaxam dalay wax ban catégorie rek la wa tabaqaat tabaxa yi bi ma ida kaan wuti nañ taarix bi ma ida kaan ci bu nekkee fi badar yi ne ci waa badar masalan ci misaal man ka nga xam ne taaqara yéex na wu faatu faatum xam man xam man la mechéda ci koo xam ne teewut badar الاستلزام ينجر ورلو جمي ورلو تأخير تقديم المتأخري جيت لك مجوا الوفاد الشفاق أما أمن يخاج تبقاتي تفمين وابدل شي تبقى جرم نهار لين بولي لكن أقام نني بوخوا لأتي بان أتاب تبقى بوخوا صري لا بوك waye mo mujj faatu kele mo ko jëg faatu hmm ci mujj faatu mom lañ jital xol sahaba yi mujj faatu nga jiital leen teg la ci tabaxaat yoo xam doo euh, dugaloo fa ci ñu njëkk a faatu loolu loolu ak ci xam-xamu tabaxaat la waaye aju ci wàllu wàllu kii wàllu wàllu wàllu taarix kon foofu wuute nañ fa dégg nga lii nag nekk loo xam ni ñëpp koy def am ñoo xam ne duñ xool mujj faatu njëkk faatu ku nekk état bi nga bokku ci foofu lañ lay dugal wala lii mooy tabaqa lii mooy njariñam in uridu l islaam mastata'tu ma tawfiqi illa billah अली तवक्कल तो